mbokk yi buur a ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ak fooy mën a nekk di ñaan yàlla sunu jataay bi yàlla na leen fekk ci jàmm te lépp lu ngeen ci déggee yàlla na doon njëriñ ci yéen dellusiwaat ak yéen jataayu xam-xam kii ma dalal tey dalaloon naa ko semaine bi lay passé biñ ne combat Reug Reug Sa Thiès duuru defe naa des na ñetti fan di sëñ Moustapha seen xel kom xanaa sant wee ko yàq rek ci man mi sant ngom sëñ Moustapha seen góor yàlla ñu waxtaanee xam-xam ba Sénégal gépp bég waxtaanee xam-xam ba diaspora bi ñëpp bég ci diggante bi li muy gàtt gàtt ñu te jëflanteeg moom sant nañ seen borom ndax dafa dem sa ba leen ci gaawaayu aajo gi mu insisté woon ci rëg-rëg man mi demoon naa ba tiit ne ko ah, sëñ bi vaar am na de mu ne ma billaahi wallaahi tallaahi bu la neexee nañu xaar vaar waaye lii ma gis ci baatin gis ko ca sama borom won ma ko mooy rëg-rëg du am ndam Sa Thiès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 waaye indi ay leeral ci mbir nga xam ne weesu woon na kon sëñ Buur maa ngi lay déglu. gars yi dama naan leen sëñ sëñ Moussa boo waxee daan euh, euh, bàkkoo sax wax mu am ab sëriñ du ko bàkkoo ndax loolu du ndam du ndamul ñaankatu yàlla wax mu am <laughs> lu jàmbaare ci ñaan yàlla wax muy am ak ñaan yàlla lu xaw a uute la waaye nag sama borom may na ko ab gis sëñ bi bi ngay prédire defetu Reug Reug et ci baatin fan nga ko tegoon waaye sëñ buur nag man dafa am loo xam ne dama koy leeral gis nga lépp loo xam ne dafa ñëwagut ma wax ci dama bëgg sénégalais ñuy bàyyi xel samay wax loolu dañ ko bàyyi xel fu leer laa ko tegoon ndax man li ma la wax mooy nit laa ko ne bari aana lu may xam te ñëwagut gis nga loolu ba tax sax dama ciy taxaw lu ci ñi nga xam ne dañ may def loo seet ci wàllu ñaan yàlla mm. sëñ buur mbaa xam nga ne nit dinaa ko seetal wax ko ci mbiram loo xam ne nangami weer ci kanam du ñëw mm. mais gis nga bu ko sàgg ne rek teg ci bëtam. Ah, ku dem ba bind téere ci xam-xamu ilmul nujum ak seet ak yooyu man man man sëñ Moussa yaa ngi may bëgg a gis nga sëñ Buur dama ne la man lépp lu ma wax ci lamb wax la ko ci football wax ko ci pël ki takk ko téere ndax suñu ndax ki may xamal du wax lu amut. ndax defet bi moom li ma la ci mën a leeral mooy dama ko gisoon gis gu leer na ma ko gise woon ci diggante Modou Lo ak Ama Balde ba mu leen naan leen lamb ji kat du am wala bu amee dana ma jaaxal. Mm-hmm. boobu yaakaar naa ñu bari xamuñu leen ndax boobu des na ay nangam weer. Mm-hmm. kon te tey jii nag ñu ñëwaat ma wax leen ni muy demee te boobu dama koo gis-gis gu leer léeg-léeg nag dina am ay ndénkaane yu ma def ci moom nuyu jug ci boppam defaraat bu wax toogaayam. ci wàllu gàllaaj ci wàllu gàllaaj benn yàqu leen fi mu toll te lii maa la ko wax magam bu góor ne mënoon na fee gën a ñaaw. sëñ bi gis nga sàccees xam nga lan moo ko tojal dem gam dem ñëwaat hmm. waaye gis nga maanaam ba mu ko jàppee bu ko ba wutoon du koy dóor ba mu tëdd damaa la wax lii hmm. fa la defee bi di gën a ñaawee moom nag ay ñaankatam baax nañ ndax ñaankat yi baax moo tax mbir ma xaw am sax lu lënt mais lu leer nañ la doon doon waaye nag alaaji buur dama cey dégg ba lamb ji jeexee ay mbir yoo xam ne daf maa xaw a métti lool digg diggante kilifa yoo xam ne ñëpp xam nañ leen ñu yàgg nekk ci làmb ji ku ci mel ne suñu père Bégaye Mbaye suñ ak père Mbaye mu Ngoné ak ak suñu Moussa ñu mel noonu ma leen wax nag ne ñoom rëg-rëg nañ xam ne ñooñu dara ci mbir yi la leen yàqal ñooñu xamuñu ko sax wallaay du caaxaan maanaam rëg-rëg dañ ko jekko ci zahir ko ci baatin lu leer laa la wax yàq léppam nag te dama wax ne sax moom na sant suñu borom bëgg sëriñ si xamalee ne ko dañ koo jekk ah. mais waroon naa gën a ñaaw te lii maa la ko wax waaye nag li ma koy dénk mooy na ut na na joxaat mag ñooñu seen wàccuwaay comme ci mën a dem na dem ba ci moom tuubal ko jéggalu ko ngir tàngal ne seen xol te defuñu ko dara su ko defee nag mu doog wut ay bagage doo ko taxawaat ci ko tem su ko deful li ci kanamam mooy gën a ñaaw li mu weesu su ko deful li ci kanamam mooy gën a ñaaw li mu wees tey sëñ bi xam-xam lay tey Eh, lii dëggal sag mën a seet macha allah yàlla na ko yàlla saxal xam-xam boo jàng la ñu yar la ci nga xam ko tey téere bii tey may seen si Moussa seen moo ko bind mooloon ci lu bare bare bare bare di xeeti xam-xam yoo xam ne tey ñaankat yàlla yi mën na bind ab téere guddi yi dañ leen a continuer waaye suñ buur loolu lu wér a wér a wér la ndax saa su ne dama koy wax wàllu seet ak li saxaar na ci sëriñ ci bàyyi xel seet ak listixaar ñaari bokkul la listixaar buur ku la daq a firi gént moo la daq listixaar walla seet ku la gën a xam rawaxaan yi moo la daq seet man samay seet jooni jooni lay doon gis nga seet bi ñu naan ndikki fayang numbe fayang jaata fayang mbaa xam nga ne bari ci réew maa tax xam ko jaata fayang ah. seet di ñett rawaxaan yi ñu ci bari seen seet maa tax ñu xam ko tey Malick Jawaas am na baaban baaban xeesu nangu am na jako see xarusin sax dañ ciy seet hmm. sama roos dañ ci seet sëñ buur seet balaa ngaa xam kan mooy Cheikh Moustapha da ngay ñëw mu seetal la ba noppi man li may wax laay wax saa su ne la seetee gisuma la demal jëloon nga may ñaan lu ma la wax ci seet di nga ci te ñëw hmm. lépp lu xamante ne ba ma leen di wax ne seen sëy dana tas ñu ngi woon ci kafakare mais dama koy gis wax ne ko ñu sàgg ne ko ñetti weer ñu teg seen bët seetal buñ ko dogale woon jëflante gis nga daa am loo xam ne seet damay wax sénégalais yi dara ñu xam ko seet man Cheikh Moussa bu ma la seetalee boo wax la ay sarax génn sarax bu laajoo ñaan ñaan soo ko defal ci kanam tuuti lu ma la wax ne la boo boo ko muy dunga gis di nga ci teg sa bët amul sama dem te jaww seet moom li may wax mooy man du ma ne kenn nangam da ngay mos mos xam la képp ku ma seetloo di nga xam ba am Cheikh Moustapha mi mën na wala mënut man ne engagement bi nga ci soo ma yónnee sa xaalis ci wéef ma seet la gisuma la jëral amul ma dem te ñëw gis nga bu ma la seetalee gisuma transfert ba nag ma ko ñëwee laa la koy delloo ak foo mën a ne ci àddina ndax man li ma lay wax mooy man asraar duñ du xaalis moo ci dugal ndax suñu borom defal na mag tedd nga maa ngi tedd ci zaahir maa ngi tedd ci baatin ndax yaakaar naa ne man Cheikh Buur li ma formé ci ay sëriñu asraar rek lu mu bon bon bon lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt mat da téeméeri sëriñ ñoo xam ne sama xam-xam la ñuy barkelu ci la ñuy jàng hmm. benn bi ci topp it ci wàllu ñaan yàlla dama ciy wax dara dama bëgg sëriñ si ñu xam lan mooy ñaan yàlla sëñ Buur keroog damaa wax benn wax mu indi polémique bu bari ma wax ne ñu bari sëriñ see leen tëj commerçant yi bari sëriñ see leen daaneel hmm. ñu bari sëriñ see tax mëntu ñoo am dara mbaa xam nga ne baytu musalla su xasaay li bi nga xam ne juróom-ñeenti bët la sëñ Buur benn bët bu ko ci doomu aadama juumee boo ko sangee nit mën na koo tëj juróom-ñetti at laa la wax juróom-ñeenti at yu benn bënt boobu rek te ñaata nit ñoo ne ci tiktok bii ne ay sëriñ lañ te suñ tuwaa xam ne ne xamuñu dara ay commentaire rek la ñuy dajale te sénégalais damaa bëgg ñu ràññee benn mbir mooy xam sëriñ ak ñaankat ñaar yooyu du wute de gis nga asraar dafa am ay ponk bu njëkk mooy xilmul orof ñaareel be xilmul adat ñetteel ba xilmul nujoom ñeenteel ba xilmul xawaatim juróomeel ba ismulaayil ansam juróom-benneel ba turu xuddam juróom-benneel ba turu rawxaan juróom-ñetteel ba turu jinde ñeent yi moom moom moo dajale asraar yii ku ko xamul mënoo ñaan yàlla bari na sëriñ koo xamante ne saraxa bekk suukar mu tëj ay mbiram bekk suukar ndax waru ndax dafa dafa contre tabian ba mu saraxa ko mu tëj mbiram bari na koo xamante ne kii sangu waxtu guddi moo ko tëj sangoo gàllaaj waxtu waxtu guddi moo ko tëj. moo tax nit ku ne dafa am yu yooyu daje ngir nga mën koo ñaanal dama koy wax saa su ne da gis nit ñi ñu lay seetal daal di ñëw rek nga xool ñu nekk nga tudd Muhammad ñu xool miim daan na la yow waa nga wala naar yow loolu taxawul nit balaa ngaa xam biddiwam mbaa rawaxaanam mbaa xuddamam faaw da nga ko boole turu ndeyam ndax ñu tudd Moustapha ñëpp mënuñoo mokk bokk benn rawaxaan loolu dama koy leer saa su ne. c'est impossible. ndax benn ñu tudd Moustapha ñëpp. nit mën naa tudd Moustapha Sène comme yow ngeen bokk benn tur bokk nday ak baay laa la wax boole ngeen bokk benn tur bokk seen turu ndey ak baay yëpp booloo nekk benn te te te teelu ngeen bokk bidiw ndax da cay feeñ lépp da cay feeñ. ki mën ngeen bokk nday ak baay te du ngeen bokk bidiw. jegewul ni deret mhm. ah yaa ngi nii da ngay bokk ak nit nday ak baay te doo ko mën a may deret bu feebaree. bokk leen léegi nag loolu bidiw ko gën a mhm. foor kon wàllu ñaan yàlla du ay caaxaan beneen bi ci topp ci wàllu kayit yi dama koy leeral ñi ngi xam ne dañ may woo ci wàllu kayit di ñaan dama leen wax ne kenn ku ne balaa ngaa dugal woo ma ndax buur moo xam nga ne bare ana ko entreprise am fay mbaa commerce am daanu fekk kam ko siqal la. kam siqal mbir ma moo ko daaneel. ndax benn mbaa xam ne ni ñuy seetee ab sëy noonu la ñuy seetee ab liggéey maam nit ni ngay bëggee soxna xool seen i biddiw ba xam dëppoo képp koy liggéey la ngaa war a xool ak moom noonu. bari na ko xam ne boo leen bokkee liggéey yéen ñaar liggéey bis ala kulli xaal day fay. oto am na koo xam ne oto boo xam ne am na mat matricule boo xam ne boo ko jëndee bi lay lisi lay laaw doo ko jëriñoo. ci ay chiffres rek. am na numéro kër goo xam ne boo ko jëndee cent ans quatre dimanche doo ko tabax ñaata nit nga gis ñu jënd kër tabax balaa ngaa yegg nga faatu ñaata nit nga gis ñu jënd kër yor xaalis te nuñ caa def dara <laughs> maanaam gis nga dama wax ne xam-xam dafa am nan bàyyi caaxaan yi bàyyi làmbatu gi. Hmm. lu mu ci mën doon nañ ko jàng-jàngin gu wér gu leer man Cheikh Moussa li may wax mooy fii ma ne weesu naa di wax lu ma xamut wala lu ma la waxut ndax ci li ma toog xam-xam ne gis nga téere bii ngay gis téere bi mooy nuural anwaali taalim xula bil asraar kii jàngalul sax gone yu ndaw yi mag ñi nga xam ne dañu man di ci booru asraar laa jàngal xam-xam fii téere bii sëñ buur li ma ci indi ci xeeti xam-xam kenn xamul lu mu doon juróomi kimiyaaw li ñu naan kimiyaaw xam nga kimiyaaw kimiyaaw juróomi kimiyaaw indi naa ko ci téere bi laa la wax te bi dong maa ngi liggéeyaat beneen téere bu tudd kanzul asraar bu nar a jur coow buur Kënzul Asraar. ndax la ma ci indi ci xeeti xam-xam xam naa ne bu ko nit ñi gisee dana leen yéem lool waaye nag jamono moo toll fa daa daa war ñu dimbale nit ñi xam nga nag coomo du bind xam-xam. déedéet coomo du bind xam-xam. ah déet ku bëgg a werante bindal. mbir mi moom amul ma dem te ñëw man naar naar yaa ngi ni waaw ko am man bindal gis nga lii volume bi ñaata la kenn xamul nu mu toll la ma ci móoloon defut weer téere bi la ma ci móoloon la may bari bari defut weer lépp la jënd ba léegi fu ma toll damay may man naar naar yaa ngi man buur du ma waxantu naa leen kii bokkul ak ñee ay wax dafay leer ku mën bindal ki gëstu xam-xam ba di ci bind ba wane kooku ba leen ne ñaankatu yàlla war nga ko gëm sama soi wàllu ubbeeku nag tey laa bëgg ñu ñu développé ci lu am solo am teraanga teraanga waxuma amantu waaye sëñ buur loolu moom waxuma sax li ma ciy liggéeyal nit mais dama cee jàngalee jàngale jàngalee lu lu kenn xamul ci téere bi rek li ma ci indi ci wàllu sangat yoo xam ne billahi li lay la ku ko sangatoo di nga doon millionnaire kenn xamul nu mu toll. waxuma laa nag li nga xam ne man maa koy liggéeyal ay nit deen ci ñaanal sëñ buur wàllu ubbeeku gis nga jaaro rek li ma ciy def ci wàllu ubbeeku benn sëriñ mënu ko fay def fii. waaye sëñ bi coowal jaaro bari na de. jaaro bari na waaye nag ku ne ak na liggéey jaaro. mbaa xam nga ne bari na nit jaaro ba mu takk per rek pare jaaro bi rek tëj ko tëj ay mbiram yëpp. couleur ba ba rek tëj ko. ndax nit ku ne am na couleur am na nees koy liggéey ci raw xaana am na waxtu wooy liggéey jaaro mbaa xam nga ne kon du jaaru yu sëñ Moussa déedéet déedéet ku ñëw rek mu ne la. man prix ma verre yi ma takk yëpp verre la. waaw ah, na takk yëpp verre la. Hmm. tey jii mënoon naa takk noir wala bleu waaye du dëppoo wut ak sama mbir. ndax jaaro balaa nga koy liggéey ne faaw nga am turam am turu ndeyam am turu baayam xam ban raw xaan mooy rawaxaanam xam juróom-ñaari xuddaam yi sama rose kas fa yaa ilu maymuna barxaan abiyat yii bu de da nga ci xam nit ki ban la mbiram dëppoo nga doo ko mën a ñaanal lii lépp day daje ngir nga mën a defaral nit ki jaaro mais jaar du caagi ne da ngay liggéey fukki jaaro ki ñëw nga jox ko benn déedéet mbaa mbaa xam nga ne jaaro sëñ buur sama jaaro boo ko takkee laa la wax weer billahi lisi laa la nga xam ne lii nga takk yu wutee nag la nga naa am na ko xam ne ko bindalee ba ma ko defaree jaaro ba jox ko ko ba mu demee këram dafa ñëw indi mu lépp juróom-ñetti jaaro nii yëpp dañ ma ko defaral ma takk ko mënu cee gis dara ba mu takkee sama jaaro ñeenti fan laa ñeenti fan la sumu jaaro yëpp sànni mm. ndax xam-xam mbir mi xam-xam la xam-xam la am na jaar yoo xam ne mbaa xam nga ne ci xalwa lañ koy liggéeyee nit xalwat. foog nga dugg xalwa pour mën koo liggéey. bëgg a liggéey ndax kon ak lañ koy liggéeyal sanga yi nag li ma ko waxee woon mooy sangat yi dañoo ëppante doole nit ñëpp bàyyi xel mm-hmm. ndax am sangat yoo xam ne gis nga bu ko ab commerçant bu new sangoo da koy sonal da koy sonal ndax benn dafa mel ni ku sol yëre bu la ëpp wàllu dama ci nañ xam ne bayre ay xeet la sëñ sëñ buur bayre ba tey dafa am bayre boo xam ne gis nga boo ko sangoo xam nga lu muy indi mm-hmm. relation yi yàgg yi nga xam dañoo dem la ñuy indiwaat ñu ñëw <laughs> am na bay doo xam ne boo ko sangoo xam nga lu mu lay indil nit ñoo xam ne dañ lay wër sa fees dell waa ci wàllu bayre ba léegi dama la ko leerle gis nga sëñ buur na na nit ñi xam lan mooy bayre gis nga am na bayre boo xam ne li la ko leerlee mooy ña demoon la lay indil am na bayre boo xam ne boo ko sangoo maanaam sa kër ba naa fees delleki nit mais duñu leen dara ci wàllu xaalis kenn du la billaahi gis nga bayre boobu moom la mbëri yi ëpp muy bayre boo xam ne si tur lay yóbbu mais am na ci bayre boo xam ne nag dafa ànd ak bayre mos dara bayre fi mu toll dana nekk bayre boo xam ne da lay indil benn nit bopp junniy nit. Hmm. benn boo xam ne ndax kenn nit ku lay jox cinq cent 500000 moo gën fukki nit yu lay rang te kenn ku ne jox la 1000 francs wala 2000. dëgg la dëgg la kon nag nañ na na ni ñuy wut la bayre nañ xam bayre bu ñuy wut gis nga su ma affaire yi mel ne safa dan naas hmm. li ëpp lu muy jox mooy mbooloo muy ñëw di ñaanlu wal xëy na léegi mahabbatan min nii bayrem li ëpp mooy gis rek sopp la bëgg la. joué na lil naase bayram li mu ëpp li muy indi mooy jigéen waaye nag bayrab wërsëg dafa am bayra boo xam ne day indi benn nit ñaar ñett yoo xam ne dañuy am njëriñ lool kon ni ko ñëpp xam xeetu bayra yi képp kuy wuti bayra na nga xool ban bayra nga ci bëgg sëñ bi ndomba yaa ngi fi ndom ndomba yi kéemaan ak coow lu bari moo tax ma teg sëñ buur sëñ buur ndom ndomba yi doy na waaw ndomba yi moom sëñ bi Modou Modou yi xam nañ ci dara mbaa xam nga ne sama ndomba ko takk doo dugg kaso billaay billaay lisi laa ilaa loo mën a def mënuñu laa tëj kaso mbaa xam nga ne sama ndomba dara mënu ko yàq ndax xam nga buur ndomba na sëriñ si bàyyi xel mbaa xam nga ne téere moom montor yam moom mootur mhm. téere day jékki-jékki taxaw ni montor di taxaw dootu dem am na bët yoo xam ne téere bu ñu xool téere ba day dootu dem am na ñoo ne bañ ci seen ndomba yi bañ ko tekkee ndomba yi taxaw na bu yàgg taxawuñu ko teg ko man nag sama téere dama ji def sécurité boo xamante ne billaay la amul lu ko mën a yàq amul but mënu koo yàq seytaane mënu koo yàq liggéey mënu ko xadal mënu ko yàq. da nga koy préparé. ci lu wér maanaam mbir boo ko liggéeyee ba nopp da ko koy wutal sécurité da nga koy tëj tëj goo xamante ne ku dul yow mënu ko dindi. moo tax ma ñi may ñaanal leen laa leen di dénk mooy kenn ku ne ku jàpp Cheikh Moussa jàppal bu dëgër. jàppal bu dëgër ndax ci kanam tuuti dees na bëgg gis Cheikh Moussa te du yomb Cheikh Moussa doole ismullahi azam ci jëflante. xam nga ismullahi azam suñu buur dama koy wax mag ñi dañuy wax ne képp ko bëgg wërsëg del sangutu waaye ku bëgg wilaaya del zikar ku bëgg mu mucc del saraxe sëñ bu ismila nit dina ko saxoo ba lépp lu mu wax boroomam def ko hmm, ismila ansam li ëpp doole mooy ijaabat ilahiya fi mu toll gis nga sëñ buur naa la xamal benn secret ñu bari nag day laa koy wax ñu xam ko des fois nit daf may woo rek laa la wax ma wax ma rek billahi lisi lay law balaa mooy jug di jëm ci aajam aajam faju hmm, du la dégg nga ma ko dégg rek la hmm. ndax damaa soxootul yàlla képp kuy liggéey ismila ansam tamit lépp loo jañ laa la bu demut ànd ak lépp loo ñëw bu ñëwut ànd ak reenam tur yàlla moo toll noonu. waaye tur yàlla nag dinaa ci jàngale dara gis nga buur dinaa may xeetu kaange gu yéeme ci ismu jalaal. ismu képp koo xam ne bëgg nga ku la liggéey yàqu laax yàqu wala ma sax ay yàqu wala boo amee yërmande ku la liggéey mu dellu ci moom bindal ma falax ak naa si. ba na kulli ayatin da ngay dëpp jalaal bi nag xam nga jalaal li ñu ko xamee mooy ahamun saakun xalaxun yasun hmm. waaye nag da ngay dëgg sayaun laaxun xasamun haawun lii ngay bind onze fois soo paree nga wut xorom ma li def ca sëñ mbir lii ku ko mos xam li gën a yéem mooy bis ba nga ko sangoo guddi ga nga ko sangoo njëkk ci ngay tàmbalee gis mbir yi lépp loo xamante ne dañ koo def ci yow dana la leer nañ te li gën a garaaw mooy lépp lu ni defat dana dellu ci moom mbaa xam nga ne jalaal boo ko dëppee mawta lay jàpp 644 hmm. boo ko dëppee mawta la lay jox ndax mawta boo xoolee ñaata lay jàpp 446 nga dëpp ko 644 moo tax jalaal ku ko xam ku lay liggéey faatu sëñ bi damay bañ ñu jotu la euh, doodo damay bañ cot sëñ sëñ bi li ma jaaxal dafa am lu may seetlu sëñ Moussa fi mu ñaan yàlla jigéen du fi jaar amul xumbaay téere yee fi nekk bërëbu sangukaay bi alquran bi ak moom cundum yaa ko ci jublu wala noonu ngay ñaan yàlla waaye sëñ buur xam nga ñaan dafa am lum laaj gis nga dina wax dara ñu xam ko bépp sëriñ bu la day lasaraar laa wax de waxuma nag ay jaay sungu fekki reen di lasaraar te xëy soo ba woon ñu koy rang billahi liggéeyut li ma la ko wax. gis nga buur man dinaa xëy am 20 appel ñetti nit laa ciy jël ndax man semaine bi ñetti nit lay ñaanal wala lu mu bari ba bari ñetti nit lay ñaanal wala ñeent. ci biir semaine bi ci biir semaine bi. du ma jël lépp ñetti nit ndax kenn ku ne damaa bëgg a wàccoog yow dama warloo ak yow ndax kër gi boo gisee ma bindoo ko nii ma ko defee muy mm-hmm. dama bëgg a concentré wu ci li may def ku fi ñëw sëñ bi dalay defal des fois li may defal dugal la fañ war a sang sang la nga dem si yoon ci ndànk ci dal moom mu toog nekkaat ci alquran ji maaw ne ci xasida yi jàpp du ko yëg loolu laa koy liggéeyee ndax ñaan dafa laaj loolu ñaan ndax benn badaa ni ngay gis sëriñ soo xam ne dañuy fanaanee tiktok di di live sëñ bi sëriñ day liggéey guddi sëriñ bi koo xam da ngay yëndoo si kan di nga fanaan ci ay live naan da ngay tiktok xalaatoo ko sëriñ dëgg lay liggéey guddi ndax aajoy jàmm ñi guddi lay fajo hmm. aajo dana faju bëccëg mais aajo ju ci aajo am na aajo yoo xam ne guddi rek lañ mën a faju kon loolu na ko ñëpp bàyyi xel sëñ buur gis nga ñaan doy caaxaan te gis nga dinaa dinaa indi benn dara gis nga gone yi dama bëgg ñu bàyyi xel bu baax ci lii may wax gis nga sëñ buur ñaan ni ngay tëjee nit noonu la lay noonu la yow mi ñaan noonu la lay tëjee bu yàgg seetal naa benn waaye joo xamante ne sëriñ la kuñ xam su ma ko waxoon ñëpp xam turam ko daan rang 24 heures sur 24 dafa jékki-jékki mbirum kenn ñëwatul kenn ñëwatul gis nga ba ma ba ma wax ba mu ñëwee ci man dimb sàkku ndimbal ba ma ko lis xaaree damaa gis ne moom dafa am benn waa ju mu doon ñaanal te waa ji benn waa ji dafa amoon keneen koo ko joxoon tur yàlla jaay ko xaalis bari mu koy sikkar fàtte xudaam bu tur tëj ko moom nag mu ñëw di ñaanal waa ji di lis xaar xuraan xudaam yi jàpp yi tëjaale ko lépp ndax fi ndool gis nga loolu ni mel dafa mel ni yow nga dem ba campénal bëgg rëccel prisonnier ya léegi nag noonu lay demee léegi nag gis nga sam damaa bëgg gone yi def ci ndànk te xam ko bu baax sëñ buur bari na koy ñaanal nit ci biir ñaan nga am ay jafe-jafe. billaahi lazi lay ilaaha huwa sëriñ si nañ jàng wàllu seet ci wàllu ñaan yàlla doy caaxaan te gone yi damaa bëgg ñu xam ne gis nga xam-xam day tappale man de wallaahi li ñuy am yéene naa leen ko bu baax waaye nag xam-xam nañ ko teg ci yoon. képp koo xamante képp koo xamante ne kii ñëw na ceew di ñaan yàlla ngir jëm yàlla gone xam-xam yàggut xam-xam boo gisee Cheikh Moustapha keneen keneen mu jàngal xam-xam lan moo war a téye gone yi gëstu xam-xam te bàyyi lii ñuy dundee mooy teqel geeg teg dil gi amul njëriñ te wallaay la jëm gis nga naa la xamal mbir nag sëñ buur gis nga xale alasu jàmbur képp ku koy dundee te billaahi leewu la benn boo yàgg boo wéree boo guddee fa ne doo wér dëgg la dëgg benn doo wér wala boo doo gudd fan wala boo guddee fa ne doo wér lii moom ñaar dafa am Cheikh Moustapha dëgg-dëgg tey waxuma sax xam bi mais yàlla seeri na ni góor yàlla nga loolu man nangu naa ko man ci xam-xam nga euh, wolof dafa ni lu jege ci ci xol bu dee dëgg la cib xol lay bi waaye xam-xam bu wéree nit ki lay déglu xolam ak xelam dafay nangu sem soit looy tàggoo waaye li may tàggoo mooy tàggatoo bu dul tàggatoo rek tey ñaan suñu borom tabaaraka taala Cheikh Ahmadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi loolu tamit ànd ak wér te ñuy ñaanal suñu jàmbaar ji Serigne Saliou suñu buur maa ngi sàkku ñëpp ñu ñaanal suñu jàmbaar ji mm-hmm. ndax ñun ñi nga xam ne de day suñu baay dañu koo joxoon mm. la ñu tax ñu jox gis nañ ko bu baax ndax yar nañu jàngal nañu tërbiyee nañu mm. ñeewuñu kenn ci dara ndax bu fekkee xam-xam rek ku dem bay bind ay téere xam-xam yaakaar naa yor nga xam-xam mm, kon nag maa ngi sàkku ci képp koo xamante ne ki yaa ngi dégg sama kaddu nga ñaanal ñu Serigne Saliou suñu borom doole ñu koo fayal Cheikh Modou Mountakha mii saa borom yàggal ko fi loolu te man day wér te jëpp yéene joo xam ne am na ko yéen liggéeyal Serigne Touba sama borom kàttanal ko ci kon daal sëñ buur ñi ngi tàggatoo loolu di leen jox dig daje ci beneen jotaay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh